os nag ku ne xam na ne moo tolloog li mu yaa kaafi mooy yàlla mi nga xam ne mooy aar mooy fekk suñ jàngee alxuraan ji niñ koy jànge nag mooy ku jàng rek danañ joxe fi ñaari numéro yoo xam ne danga nga cay woote nga ne jàng naa wala jàng naa nangami kaamin ñu bind ko ba mu mat cent onze kaamin bu nekk tamit nañ ko tëje quarante yaasin ak yaa muntaqimu mille cent onze waaw kaamin bu nekk nañ ko tëjee yaa muntaqimu mille cent onze euh, am mu ànd ak quarante et un yaasin kaamin bu nekk bu dee nag ñi nga xam ne yàlla dafa dogal nga nekk bitim réew wala nga nekk ci kii yoo xam ne mënoo jàng alxuraan ñi ngi lay ñaan lu ko tàmbalee alxames ji ba baa ñuy wari bis bu nekk nga liggéey yaa muntaqimu mille cent onze muy yàlla yow mi nga xam ne yaay fayul ku ñu tooñ yow fayukat bi nga jàng yaa mun taqimu nga def yaa mun taqimu yaa mun taqimu yaa mun taqimu mille cent onze té junni ak téeméer ak fukk ak benn soo koy def tamit da ngay tàmbalee fa gën a rëy muy junni bi ngay def tekki ci bi teg ci onze yi maanaam mille ngay njëkk a def teg ci cent teg ci onze soo noppee nga yéene ñaanal Ousmane Sonko yàlla tooñaange gii ñu koy tooñ ñi koy tooñ ñëpp yàlla na ko yàlla mi nga xam ne mooy fa moo mën a fayu yàlla na ko yàlla fayul nga ñaan ko ci mun taqimu googu mille cent onze su la neexee bu koor gi jàllee nga wéyal ko di ko def ñaanu ku tooñ la euh, yaasin bi tamit képp koo xam ne yoroo daara mënoo jàng quarante yi yaasin tamit ngi lay ñaan rek nga tàmbalee benn euh, ba quarante et un ba quarante et un yi jërul weesu su neexee bis bu nekk nga jàng benn ba keroog muy mat quarante et un ndax yonent bi moo waxoon ne yaasin li maa xure maanaam loo jubale rek ca jublu ñu ñaan yàlla mu aar Ousmane Sonko te sàmm ko te sàmm njabootam sàmm ay soppeem ak i xaritam ak i partisan képp koo xam ne da nga leen di tooñ itam yàlla na yàlla taxaw ci place fayul ko ba ba bëccëgu ndara kàmb ba ñëpp gis fayu gi képp ku jëlati doole wala jaay doole wala ay wute wutali ko ko itam te nga xam ne jaay doole ko ay rek moo tax nga jëmale ko ko yàlla na yàlla dëpp ay wa jëmale waat ko ci sa kaw jëmale ko ci sa kaw njaboot loolu nga ñaan ko ngeen ñaan ko ndax yàlla moo wax ne laa yuhibbu bu al-jahra bi soo'i illaa man zulima <coughs> laa yuhibbu llaahu al-jahra bi soo'i min al-qawli illaa man zulima maanaam am na yoo xam ne bu fekkente ne dañ laa tooñ suñ borom ay maanaam limite ba day dañ te wax dëgg yàlla nii ma ko jiitalee wax ko lépp bëgg wax ne rek nekkuñu di wax di wax waaye mbir mi ab réalité la bu leer naññi boo xam ne ko say seetaan ko seetaan ko maanaam seytaan la ñàkk cee dugal sa sa dara kooku seytaan la kon nag ñu ngi ñaan daara yi alxuraan yi Tuuba Tiwaawoon Kawlax Njaasaan képp koo xam ne forcé wuñ kenn nag waaye ku ko yàlla man loo daal tam wóor na leen man nga cee jàpp ñu ngi lay ñaan di ko tàmbalee alxames jeudi bii nu jëm ñu tàmbale alxuraan ji tàmbali yaasin yi tàmbali dog yi di ko liggéey ba keroog muy mat incha allahu taala fi leen ñi balaa fukki fani koor gu mu daal dana mat bu soobee yàlla bu matee itam ñu ñaan ci yaa mun taqi mu beet képp ku ko liggéey boo noppee rek na ñaan yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ne moo am kàttan te mën a fayul nit yàlla na yàlla fayul Ousmane Sonko tooñ giñ koy tooñ di wax wasalaamualeykum wa rahmatullah kaaminu alquran mille cent onze kaamin yi ñu ngi koy tàmbali jeudi le treize bëgg koo jeexalaat jeudi ba ca topp nga xam ne ci juróom-ñaari fan incha allah Euh, danañ ci dugalaale laylatu xadar yu murid yi mu nekkaale laylatu xadar tijaan yi waaye fukki fani koor gu mujj géet ñi làmbatuwaale ci rek euh, ñaan ci yàlla muy cent onze kaaminu alquran ci une semaine boobu ñii ci ñaan ndimbal mbokki daara yi képp ko man boo jàngee rek nga wooñu ci numéro yi ñuy bëgg a joxe bu ko defee yëgal nañ jàng nañ bu dee benn bu dee ñaar bu dee ñett ñu noté ko ba nga xam ne cent onze yi dina mat lii moom cent onze nag liñ ci jublu mooy kaaf yi muy yàlla yow mi nga xam ne yaay fekk kaamin bu nekk tamit su yeggee maanaam bu doon da ngaa jàng fukki kaamin it bu yegg kenn ci yéen wala ngeen séddoo ko ca mbooloo ma da ngeen di jël kurus ngeen def yaamun taqimu mille cent onze mille cent onze yaamun taqimu da ngay njëkke mille yi teg ci cent yi doog cee teg onze yi noonu lañ koy defee soo noppee tamit ñu jàng quarante et un yaasin maanaam kaamin bu nekk day ànd ak mille cent onze yaa yaamun taqimu

daal di yëgle ne kat man la diw jàng nañ benn kaamin wala jàng nañ ñaari kaamin dinañ ko noté boo matee incha allah dinañ ko message ñëpp yëg ne mat na ñu bokk jàng xatmu bi ñaan bu fekkee nag ki nga xam ne yàlla dafa dogal moom amul euh, mën a wàccee ab kaamin ba mu yegg su ma nee sóoratu yaasin ñi ngi koy ñaan benn ba 41 lu mu ci man rek na ko def ci une semaine boobu bu fekkee koo xam ne itam moom mënta tiim ab téere di jàng alxuraan mënta wàccee euh, kaamin mënta jàng yaasin ñi ngi koy ñaan mu jël kurusam mu liggéey yaa muntaqimu mille cent onze diirub fukki fane koor gu mujj gi yëpp su ko neexee itam mu di ko yeggale yaa muntaqimu nag li muy firi mooy yow yàlla mi nga xam ne yaa am kàttanul mën a fayul nit ñi ngi lay ñaan nga fayul nu loolu lañ ci jublu fayu gi nag maanaam wax naa ko ñaan gi nag liñ ci jubluwaat rek mooy dañoo nekk ci réew nekk fekk suñ mbokkum julit buur di ko teg loo xam ne teguwul ci dara loo xam ne yoon la lu dul jaay doole jaay doole gi nag buñ ko waxee mi ngi tàmbalee ci koo xam ne ay at ngin ngi nii doo mën a génn sa bu euh, réew mi nga nekk dañ la fee téye ñu jóge ca ay yooni yoon mënoo génn sa kër boo bëggee génn yaag say doom da ngeen di ñaan pour ñu bàyyi leen ngeen génn julli ji jumaa aaye nañ la ko julli aaye la lépp te loolee amul wenn kayit bu koy notifié amul lenn luy wéral ne lii daal du jaay doole kon liñ ko mën a jàppe mooy ak tooñ la akuk jaay doole buñ ci jógee ñu gis buntu këram ñu koy tëj di fa dóori lacrymogène bis bu ne loolu Sénégal gépp a ngi koy gis jege ca lu ëpp ci ay nawleem yi muy àndal nga xam ne ay xaritam lañ ay bokkam ñi ngi ci kaso bi lu ëpp juróomi téeméeri doomu aadama cinq cent personnes yoo xam ne ñi ngi ci prison bi te amul kenn koo xam ne daañ ne daa sàcc wala daa rey Euh, ñenn ñi sax gis ngeen ñu jël ay lami bracelet yooyu nga xam ne day mel ne da ngay jàpp nit ki jàmm jël ko takkal leen ko te amul benn déli yéen ñi toog boo xam ne mën nga ne wax ne Waly Diouf Bodian wala Pa El Hadj Malick Ndiaye lu def ku leen ko laajoon du ngeen ko wax maanaam lu dul rek ay humiliation ak ay jaay doole nañ ci maam Paate Mbay ak Adama Ndiaye keneen ku ñuy wax jong ak ak euh, Cheikh nga xam ne Cheikh caam ak Sonko ba ñuy xamante booba Ousmane Sonko benn néeg la yor. ca parcelle di fa fanaan ñu ànd bu demee ba tey ji Ousmane Sonko toll fi mu toll ñu ne ko da koy bàyyi wala ñu yàqal la defe naa ne loolu jaay doole la ñoom ñi ñëpp ku ci nekk otom ndëraan ñëw na ba ci sa place mu daaneel place ba dem te teguñ ko fenn nitu fi wuñ leen wenn këyit wuy wane ni lii buura ko dogal lu dul ak jaay doole ay nit yi nit yoo xam ne dañoo séq ak Ousmane Sonko jàmm dong ñu ngi bitim réew kenn ñi muy ci teg sa tànk fii ci réew mi ndax boo ko fi tegoon mën naa am doo delluwaat am na ñu bari ñu teg seen tànk ci réew mi ñu daal leen di jàpp ku mel ñoom Hannibal Djim tey ay ñoom sëñ Assane Mbacke ñu baree bari boo demee ci kaso yi ñi nga fa toog te ñu dara lu dul di ànd ak Ousmane Sonko loolu nag bu yàlla dogalee ñu nekk cim réew di ay jullit di ko fekkee toog di ko seetaan ne suñu yoon nekku ci dama ne boo bindoon seytaan bind seytaan benn la kon seetaan ko jàpp ne day day am day nekk benn tànk sax ci seytaan ngir daw nag seytaan seet nekk seytaan moo tax fa suñu yéen a nekk ñoo xam ne dañuy euh, seetaan mbir mi dañuy ci dugg dugg bi nag mooy ñaan yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo wax ne su ngeen ma woowee moo wuy leen su ngeen ma ñaanee ma may leen yonent bi nañu bu ngeen dee xeex ngànnaay li nga xam ne moo mat ngànnaay mooy ngeen jël ak ñaan def ko muy seen ngànnaay te ñun nag jàpp nañ ne ay jullit lañ looloo tax ñuy woo ñëpp ci ñu jàpp ci fukki fan yii ñu ñaanal Ousmane sonk suñ borom aar ko aaru njabootam aar alalam aar projet am aari bëgg-bëggam aari militant képp ku koy tooñit yàlla na ko yàlla fayul képp ku yan aw ay wutali ko ko yàlla na yàlla dëpp ay wa na mu toll mu delloo ko ci sa kaw delloo ci sa kaw ak njaboot loolu ni nga koy ñaan ku ko yéene jàmmit yàlla na nga ko ci jiitu waaye ko ko yéene ayit yàlla na ay wa tëpp këpp ci sa kaw ñaan leen ko ci alxuraan ñaan ko ci turu yàlla ñaan ko ci sóoratu yaasin yàlla def ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.